xadi daal da ko jël teg kon daal ba def na la mu doon wax dégg naa danga toog ba caam toog mu ni fasen fa kii na la waaye kon yow man su ma la ñaanee da bañ kon xadi dégg ah, ma xamal la gis nga baax yii mu nekk nii man nekkuma ci fi mu toll nii waxam ji muy wax teguwul fenn xam nga lu mu di ma chantage ma jox ko xaalis pour ma ñëwaat ci kër gi pour nee na ma nekk ak moom xalaatuma ko ci àdduna te duma ko defal benn góor. pour maanaam daal nga koy fay pour mu nekk ak moom. kay waaye damaa ko def. waaw kay. Aliou ça va. yàlla bu baax. mu ngi fi. d'accord ça va. ba affilé mu fekk waaw. yow yaa yow yaa ñëw fekke toog kii ñu koy fase nga toog di yow yow yow caam loolu nit nit du ko def jullit du def loolu. Ah. jullit bu fekkee fu ñuy fase nii dafay defar waaye toog kii toog ba toog nga toog nga bu ñu koy fase nga ni nga yaa nga di xoole. yow sa njëriñ ci kër gi lan la. ba mu koy fase man maa ko fasoon maa ko fecci parce que kii moom moo toog ni ba may ma sama baat. waaw yow nga rafetal rek. ma doy de ma ne ba jël sa fulla nag. Eh. kii fase ko génn ko kër gi maa ko wax ma. sëñ xool fase gii nono la fi kaay ma wax la nag fase bi fan la jeexee ko. fase ba fii fase bi xew fase ma xew fii ci kër gi kaay ma wax la fan la soqee ko. kii ba papaam bi fase ndayam. dégg nga lii. digg bëccëg la ko fase. information de xam nga nu yaayam def. waaw ñëw taxaw ne ki ma doon sëyal. daa tële. Eh. ñuy laam-laamee ndax doom ji moo ko jur wala juru ko. doom kii nii. waaw doom jënd yaa ngi dégg. papaam fase ko génne ko génne bu ñaaw dikk ba càkk. nday ki la génne. sa paa pare du tëgg waxul dëgg. sos. lii moo tax ñu fase ko. loolu ñaaw na de. sos rek la dëkkoon ak ba. ba à raison moo tax mu génne la kër gi. beneen bi ci des mooy. waaw waaw tool la de presse. revue de presse laa maye tey <laughs> beneen bi ci des mooy. ba la revue de presse ak Khady Baba. Ah. tollu du loolu gaa ngi toj dama lay supporter lu ne. vas-y. bab bi di fase yaayam. yaayi ba waaw. sëy dafa sëy fase ba maanaam ba palaa fu ne amatoo loo fase waaw waaw waaw ñu dem baara sawti ko dégg mu wàññeeku waat ñu indiwaat ko dugal ci biir kër gi ah, ba mu ñëwaatee def fi at waaw ñu fase waat ko waa xaa kon fase bi noonu la waaw noonu la ci biir kër gi la kon ba mu yàgg mu remplaçant ba yàgg mu ma dundee nag ba génn ci jaam yii ak baadoola yii nga xam ne ay jaam lañ <laughs> damay sant yàlla man buñ ma fasee am naa way wu rafet ndax man damaa sëy ba sëy jotee mm-hmm. tas ba tas nag seeni kër mm-hmm. ak seen famille mm-hmm. dama naa yor seen livre nii xadi may eh, ma xadi information ma jox la beneen information kii gis nga kii gën bon ci jigéen ñi eh, loolu information kër gi kii kër gi kii doomam kii doomam a ngi daagu ci kër gi loolu du information nga loolu gis nga doom muy daagu ci kër gi waaw waaw am na doom feneen loolu moom. am na doom feneen moom du information bi muy ñëw si biir kër gi kii bi muy doom bi muy ñëw si biir kër gi dafa ménopause. waaw loolu du information loolu moom. dama ni kon maa yow égal loolu moom ñëpp lay daal dégguma yaay déggoo papa. ndax yaa ngi nii kenn xamul ne da ngaa ngeen boo galas. ana doom doom doom bi nga xam ne dañ koy dégg te duñu ko bëgg. amul doom yow amul doom. yow man waaye yow da nga naan ban doom am dégg nga ko. pelloo leen wax dëgg rek pelloo leen wax dëgg rek. pelloo leen wax dëgg rek. melawuñu dara yow yaay seytaane bi yow. waaw yow yow yaay seytaane bi yow. bàyyi ko mu wax ba pare nga jël bàyyi ko mu wax ba pare nga jël yow mi war a defar yow yaay ñaawal yow. xadi onol waaw waaw yow mi war a defar. yow xool yow. Mhm. ancien marabu. Ah, waaw yow yaay ñaawal. waaw sa tàndante jeex na xadi baasi. <laughs> man dégguma yaay. waaw waaye déggul papa. waaw waaw. <laughs> ndax yow bu dee damaa mel ne pause. waaw mag yow a bokk. dafa fenn pause sa doom ji ngay wax dañ koy dégg donc. waaw waaw waaye kenn musu dégg. waaw waaw te dama ne ba ma leen xamee dafa yàgg. koo ko toj na de. noota waay yow looy def <laughs> soxna ban bi fii la dëkk donc dañ ko ah, ko fase te warul génn loolu sa yoon nekku kër gi kay ah yow nekkoo ci kër copp nga fii mu ne mu ne def minute mais sa yoon nekk wax lii wax il faut mu il faut mu compléter document yi doo ko dem man dama toog ak pour ñu fase man <laughs> comme day ñaaw eh, nit booy génn ci bërëb da nga fay bàyyi taraas te taraas bi nga fa bàyyi maa ngi koo te ah mais xar yi barke nit booy dugg ci ay nit da leen di xam da xam seen source xam seen lépp bu ko defee bu ñaawee rek yow fi départ xam nga ne li nga xaw ma ko woon bu déedéet bu dama ko léegi bo bu dama ko léegi des na yeneen am moo yeneen yooyu war a génne bal yi ma yor dama leen koy tiire ñu toll ah ah, ko sa bopp mënuma jël bagage ku ñu fase say xool ma ko def xadi loolu sama yoon dajee ne baax na baax na information taage ah, xanaa nga woo ma téléphone rek ay bagage moom moom moom bokkul ci samay bagage moom ma woo la tey euh, mbiru miraas bi laa bëgg ñu jublu ci miraas bi yow yaa doon jabaram yaa nekkoon ci ginnaaw yaa daan jàll ci ginnaawam yàlla dogal na na yoroon na yeneen i jabar fase ne leen avant muy dëddu du dëgg kon kan mooy euh, euh, priorité du yow wooteel miraas lu mu gën a gaaw nag woote ko ndax fi mu toll nii damaa pare pour defante te ba moom dinaa defanteeg moom ba mu leer miraas bi moom faaw nga woote ko li xew mënuma la see tegal dara faaw daal nga woote ko moom moomu di baax mhm. jaam bàjjat gàcce gu wow kooku dina fi am te bu ma la ko xee war nga maa gëm mënumaa xeexee nee nag mënumaa histoire neen fi mu toll nii nag yow yaa ma dese te yaay sama pion yaa ma mën a jàppale muy ci miraas bi waaw mirage bi seen bëgg nañ commencé bëri problème ak ay détails de wooteel mirage yow su ma wootee mirage yow amoo dara ci mirage bi lu sa yoon waaw man sama yoon nekku ci waaye yow laa dimbali ak sa doom jee nga uuf dimbaliwu ma leen sax yéen ñaar kee bokkatu ci mbàmmeelam bee laa yow imagine bu mbee ca bàmmeel waaye mel ni ko ragal mais ma bu boo mirage su da da du tas <laughs> bu mu séddalewul li mu am fii dina taal. say wax de non non ma lay wax li fi ne man xam sama wax démb moo démb ma mu neex laaj yooyu mais li li l'islam wax laa lay wax bu ñu miiraasul. du taal waaw. te imaginer buumu tëdd bañ a taal li loolu laay xalaat man. loolu sa yoon newu ci xam nga lan la waxati waxu miraas bi ke tëdd fee bàyyil jàmbur waaw kay. léegi nag comme que waxu miraas nga bëgg te nee nga am na loo ci xalaat. Mhm. bëgguma ñëw ba ci jour ba nga may indi gàcce de baa ngeen affaire bi di retourné wu ci man. gàcce doo am yàgg ngaa xalaat di ma jox te moom boo boo ma joxee dama koy utiliser. kon nag man li ma la la jox utiliser ko dëggam ah, déet. Ah, ah, léegi yow semaine prochaine. ma woote ko ci lu mu gën a gaaw. ci lu mu gën a gaawee ndax fi mu toll nii moom amatul xaar amatul. yow yaakaar na semaine prochaine mais man mos nañu ci biir semaine bi du ci waaye miraas bi man koy waajal ndax imaam yee tax duñu am jot. ok ba pare woo lijjanti ji médecin mu ñëw toog ñëpp toog parce miraas boobu na ko ñëpp fekke rek. ñëpp fekke man mii sax naa fekke incha allah rabi. waaw baax na mais na la jàpp na yéen nag amoo dara fekke fekke amoo leen ci dara. waaw mais mais mais xanaa këyitu bu yi mosoo koo xool. këyitu bu. waaw ah, mooy document yi mu daan denc. waaw ah. baa xam nga ni bu daf maa adapté woon. kan man xam nga luy adopté xam nga mu adopté mooy lan man doomam adoptif am laa baa xam nga ne bu bu wax amoon man maay taawam sama këyit laa ko jox samay extrait santam la man yow yow kon xanaa yëgoo li xam xooloo këyitu booy mais man maa leen may sama waal rek ma ci dara ndax bu soxlaalu ma ko dara seede yàlla soxlaalu ma ko dara mais damaa adopté woon d'accord ci lu mu gën a gaaw waaw yàlla baax na. sa yoo xam ne ay reer may def. moo tax ma woo ndax damaa yoroon xaalis mais dafa koo xam dama koo lebal te fi mu ne nii dafa problème boo xam bu ma ko war a régler d'urgence palaat bi na ma ñëw ndax dafa voyagé te bëgguma mu ñëw ma am beneen problème ak moom léegi damaa xam yow nit ku sutura nga nit ku baax nga nit ku yiw nga nit nit ku nit ku simple nga nit koo xam am nga bàmmeelu biir. damaa bëggoon yow nga amal ma benn sagaru cent mille rek sagaru cent mille lii may réglé rek jox la incha allah. Hmm, nag cent topp na ma de. cent mille franc sagar benn sagaru cent mille la cent war tamit bay lépp cent man dama am problème dama dama am nu ma war a rek balaa bi na ma ñëw ndax bëgguma ay problème ak yooyu. yaa ngi dégg te ma bu ma bu ma ko su ko problème bi fekkee day gën a catastrophe. léegi moom bëgg nga am sakaru cent mille rek après incha allahu rabi rek ma fay la naa la fay. man xam nga loolu duma la ko bañ a nga am problème yow tamit ma ma ko yor ko te duma la ko jox loolu wax dëgg yàlla yàlla sax bëggul loolu. kañ nga may fay. dans la semaine rek incha allah du yàgg du yàgg semaine sept sept la de. Euh, ci la semaine nga wax. ci huitième bi incha allah ci huitième ah d' xam nga xam nga bu semaine bi huitième bi ba ci minuit sax ci huitième bi la bokk. ah damaa bëgg nga xam ne boo ma fayul sama cent mille ndax am fàcc ne mi ma jur naaj ci kawam moom laa poñe ci samay cent mille waxatuma ak yow mi nga xam ne bokkuñu dara dara dara dara. waaw moom moo tax sax ma lay lebal nii kóllëre gi ñu yàlla booleel moo tax ma lay lebal xam ni sama doom sëy na fii ci biir kër gi ak sa doom ba doom juddu fi. ma xam ne deret jaxasoo na moo tax ma lay lebal lebal 100000 ndax man 100000 dama ko bàyyi woon sax euh, di ko di ko daanaka su ma doon wàññi ba ne mi sax léeg-léeg damay tëb wax 200 ndax 100 bi laay bañ di ku dégg. kon nag leb nga ma ko dinaa la lebal. te eh, da wax ndànk da ngay wax ndànk. xamoo ndax am na dégg ci biir tey nag damaa ba fi dama laa woo ba fii kay. damay comprendre rek waaye boo ma fayul di nga ko rëcc de. dinaa la fay incha dinaa la fay dinaa la fay. d'accord nañ dem kër ga dinaa la fay nan dem nan dem nan dem loolu kay nekk benn chef na nga def. sant yàlla ngi ci jàmm. alhamdulilah naka voyage bi. Ah, naka euh, activité yi foofu ba lépp jàmm rek. alhamdulilah tey daa mel ni da ngaa sibilu. tey daa mel ni da li waraloon tey visite bi. Hmm. Euh, vraiment jàmm rek la. Euh, muy visite boo xam ni. boobu ba léegi amoon nañu yéene mu am ñu jotaay ak yow. Mm-hmm. bi ma déggee ni da nga xawoon a nekk ci mission moo tax ma ne woon naa bàyyi ba nga ñëw. Euh, li tax ma ànd fekk euh, euh, sama sama père. waaw mi ngi noonu jamono jee weesu. Mm-hmm. ba dafa jaay benn terrain. waaw jaay benn terrain. Mm-hmm. terrain boobu Euh, xam naa ni sax noos gi mu doon noos ak soxnaam su bees ci xam naa yooyu yëpp boo jëlee jàngat boo defee jàngat xam naa fa la ko jële terrain boobu mu jaay mm-hmm. euh, ginnaaw loolu nag moom mii sax moo ñëw leeral ma ko euh, paa bi dafa jaay benn terrain ah. waaw mu ñëwee wax ma ko te xam nga boobu ba léegi bu ñu ngi ko war a miiraas mm-hmm. te xam nga nit faatu buñ ko miiraasul du tàlli te loolu nag man dafa am nag loo xam ne lu rëy yoo xam ne dama koy daw dama koy beñal góor gi loolu nag segam am na euh, il pare que ni terrain boobu ci li ñu war a miraas yi bu ci la bokk moom nag ba da ko féete féetewoo boppam ni moo ko moom moom yow sax xamal nga ma ni ma ci tudu tudukat na ne hmm? waaw ay la yow man de xam nga ni moom non wax ma rek yow da nga ne ma ci turu boo la ne. waaw waaw waaw ci turu boo la ne. kon léegi terrain boobu nekk ci turu bu nan la ko ba mën a fiitoo ba di ko jaay ba di ci mën a noos ak yu ni mel. ba moo jaay terrain ngi noonu. looloo waral nag tey ma ni naa ko indi moom nga xamal ma lan la ci yoon wax war a waraloon samay tànk. ok bon maa ci seen bi yéen ma seet si. lu jotaay lii nga wax nii terrain bu ne ci turu yaa jaay terrain wala kat moo jaay terrain. non oh, ba ba moo jaay terrain bi. wala benn waay la jaay benn waay ji nekkoon Gambie euh, Pape Latir la tudd ni woon ma nag damaa bëgg terrain fii Sénégal ba ma déggee bay daa jaay boobu ba waruma woon sax kayit gi daf ma ni day jaay ma mettre leen en rapport ñoom ñaar ñu waxtaan ci la ko ba jaay terrain bi après kooku daal dellu Gambie. waaw parce que bi ñuy def euh, décharge yi ak témoins yi ci laa yër gis ci tur buum ci géej moom laa la wax dëgg naa waaw waaw gis ci tur buum. non waxuma da yër da nga ma tur bi da nga ma gis nga ci leer. ni bu turam moo nekk ci terrain bi. waaw li ma wax ak li nga wax lu ci wute. non man kay dama bëgg a xam rek lan la ci yoon la. waaw euh, dama lay expliquer. vente bi fi nekkul procuration lay am. bu dee mu dund ku nekk extérieur di jëndloo kii di jaayloo kii day bind procuration jox ko pour ñu wane ne ñun ñun di justifié nañ diw yaa yebal kii. ba daa waroon am procuration. procuration bi fan ba erreur naa ba xam nga yow mi sa wàll ba lim def kan non bi yaa ko jaay. Ah, yàlla eh, yéen nag dama ne nga déglu ma terrain bi yaa ko jaay na ngeen di jëlee terrain boo xam te newu ci turu ki koy jaay waaye Bamba moo ni ma ci lam kon daal ci li ci li ma comprendre mooy ñi nga xam ne sax bokk nañ ci njaay bi am na lu leen ci daan bu leen ci mën a fekk gis nga ba mi jaay ah. te moomu ah. ki ko jàppale ci njaay mi eh, eh. ki ko boole ki jaay ba li nga ci lekk bëri na ah, non non non ba nag ma dugal nag ba xam na dama ne yow ba xam ni nga ci lekk bëri na wala. waaw déedéet man kay li ma ci lekk mën naa koo sax delloo baa ni ma ci làmmiñam terrain bi boo ma ko jaay waaye diggante bi ma ko jaay ak léegi dafay feebaroon bi ma waree defar procuration war a bind ñu perfusé ko ci loxo droite bi maanaam mënatuloo yor bi pour bind. loolu moo tere woon procuration bi mais man moom affaire police ak gendarmerie bu ci naree am ma ma joxoon ma delloo leen ko ndax man. Euh, yooyu. Euh, chef. Euh, chef. Ah? chef euh, euh, bàyyi ma ànd ak moom dem euh, leneen li may régler naa ko régler man ak yow ndax dafa am loo xam ne boo koy lijjanti am na neneen noo ko mën a lijjanti jugal dem. waaw Malick non yow jugal rek toog ma dem Malick Biram bàyyi ko fi tuuti ñu dem yow ku la fi du man. waaye Malick waaye. ah yaa ngay toog. waaw demal ma ah, ah. man Biram yow diggante yàlla ak xam nga man bu ma jógee fee yàggul yow fa naree delluwaat yàlla xam na ni cent cinquante mille lañ ma ci waroon jox ma boole ko ak ka jaay terrain bi ñu jox ma ci soixante deux mille ni ma maa la defee li des ba léegi soixante deux mille yi mën nii nii mën naa laa avance deux mille nga téye ma ko su ma jógee fii soixante mille am na lu may lijjanti bu ko defee mu ma ñëwee yow loolu lépp yaa koy bokk lijjanti. dugal nga génn léegi. dugal nga génn kër gi. waaw mais mais léegi léegi loolu. kii jox ma sama melo di ci taawul bi. Malutulun. Mali. Biram. Zanzu génnal kër gi. ba ba ba ba. Ah, ah. lu ma xalaat loo xam ni. Mm-hmm. xam naa ni Amady yooyu xam naa dinañ ci jubóo. Mm-hmm. Euh, ndax dafa am loo xam ne day rafetal ginnaaw. Mm-hmm. te man noonu lañ ma xamee. xalibaa bi mii ma wàcc muy dem. waaw. même que sën. war na ni bu miraas bi passé day dem. Euh, bugguma leen a dem bàyyi loxo yi nen. ndax seen làmmiñ lañ yor dañuy yàq te lépp ci yow lañ koy wéer yow bi seen bees bi. yaa waaw moo tax ma buggoon xaalis bi nga nga jox ma ci cinq cent mille su ko defee ñoom ñaar ma séddale leen ko bu ñuy dem su ko defee sunu ginaar rafet ñun ñu toog suñu fi taal. sinon dinañ ma nàpp dinañ la nàpp xam nga te nit ñi dañ may jam loolu daal laa bëgg waaw. mais man da nga a wax xam nga man nag damaa bëgg sax damay sëyee sax ah. parce que ñëpp nee nañ man jëkkër ji ma doon dafa yor xaalis est-ce que ba yor na xaalis comme moom loolu la ñëpp wax man ma ma bàyyi leen nag ñoom wax waaw yàllaa yor ñëpp di. Ah, te sa yàllaa ko jënd foofu jeex na man fii laa lijjanti lijjanteetu ma foofu léegi nag en tout cas xaalis bi mhm. fan yii damaa demoon sama kër yaay mhm. mooy taw loolu amoon fi noonu nawet di passé nii seen parti mii bi nag daanu ñoom waaw ma bëgg a sagal sama bopp rek ndax nga am fay woy woy bu rafet ma yëkkati deux millions ci xaalis bi jox ko ne ko yaay defaral lii sama jëkkër moo la ko jox te sagal la rek nga am fa way kan ngay sagal ah yow sama jëkkër waaw dimbali ma yow waay yow nga seen sa kër yaay de nga man ngay sagal loo may sagal naan woyu baax kër soxla woy soxla ma woy waaye yow nga naan ma woyu baax ak woyu bon waay yow lan la ah yow man sama xaalis tàgguma dem sa kër yaay miiram daanu ngay dem naan da ngay joxe ay deux mille ah bu dee sa papa du ko defar sa papa lay sëyul sëyul ak ko sa papa tax dafa miir bi ngay jël sama deux millions di ko fa joxe waaye dimbali mooy respecté sama papa la xam waaye miiram moo daanu na ko defar moom mooy sëy ak sa yaay sëyu ma ak moom man doomam lay sëyal ngay jël sama deux millions di ko fa joxe nan lan yow yow da ngaa waane yow man maa la ajoon xaaral dinaa la aji fi nga tegul woon yow. waaye mais lan la man du yow man mais yow benn jabar sañu lay jël sama alal fii laajal ñu fi fekk man te ma waaye mu naan woy wu baax na woy wi bon waaye yow li lan la waaye yow. waaye dimbali ma waaye yow bu daara na ko sa papa defar mooy sëy sa yaay sëyul ak man waaye yow man daa sëy ak man waaye yow moom lay cuuraay. du ko nemmali du ko defal. ba deux millions ngay waaye yooyu waaye dama ni sama xaalis di ko lijjanti de di nga ko lijjanti lu leer laa la wax yow mii laay waxal waaye yow. en tout cas daal ma def sa sag la. waaye sagu la waaye doo ma nga naan ma sag. waaye yow dem moom dem na ba pare. ba demul de fenn la demul laa wax sama net seen wiiju dof yi man xooluma sax waaye yéen moo naan ma ma sag woy wu baax na woy wi bon sa yaay daa sëy man papa bi ci loo ne. maa ngi ziar Cheikh bi. tey naka daara yi. waaw sant bu baax. alhamdulilah. amoon na samay tànk moom daa daa am lu ma woon. muy góoru Saalum bi moom laa bëggoon. góoru Saalum woon daal. tey da nga ko yittewoo woon. waaw maa xam ñoom seet si la ba xam. am nga soxna. am nga soxna. non non nga soxna. lan nga yëg ba tax nga ko jënd. ah rek ñun dal quoi. dañ ciy nga rek. affaire bu bëree lay dem ba day hmm. day ndoxe waa léegi dafay bëgg yaa ma gën a xam. mu gën a dëgër quoi waaw ah, ah. waaw. Hmm. nga ne nga ne nga ne amagoo soxna. léeg-léeg amaguma soxna. da ngay yëg ne da ngay néew kattan léeg-léeg. Ah, bu baax sax. Hmm? bu baax. ce que xam nga ne bu continuer benn jabar sax doo ko mën denc. sakkantuma ak ñaar. xam nga loolu. yow yow sax sa yow man ak yow nañ wax nañ jàkkaarloo ñu waxataan yow est-ce que réellement yow jàpp nga ne boo amoon soxna nga war ko dëkkoo wala dëkk ak moom lam soxla yëpp nga ko koy jox est-ce que yow jamono ji mën nga ko su wax dëgg rek te yàlla tax moo la andi nii ñàkk koo mën la mais xam nga ne yaa teg sa bopp yaa ko teg sa bopp yow ak sa morom yu baari nag yoo xam ne dañuy def lu xaw mel ni li ngay def gis nga góor Saloum boo gisee ñu ne am na quelques célibataires yu ko war a mën jël xam nga ñan la hmm. du célibataire bi nga xam ne daf koy jël pour dem fooy déedéet mooy célibataire bi nga xam ne fooyee na boppam par erreur ba daanaka yëgatul dara ci boppam bu xëyee suba teel lam daan yëg yëgatu ko war nay takk jabar ragal na takk jabar wala takk na jabar ragal nay dem ci jabar ji mais ki nga xam ne ragal nay takk jabar li tax ñu ko koy jëloo mooy la mu xamoon daan ko yëg suba teel ya te mu dem lañ bëgg mu ñëwaat bis bu ko yëgaatee fekk moom jël na jël na maanaam waat na gëm na gëm na ne bis bu yëgaatee boppam moom day dem takk jabar may dootul fo su boobaa nag moo dem takk ji jabar ñu continuer ak moom traitement incha allah mu mën dëkk ak jabaram mais fekk nit ki mu ngi foyee boppam wala mu ngi def lu mu gis rek dal ci ci néew kattan moom ci lay dee te néew kattan googu mën na koy jural benn jabar sax du ko mun yor waxantuma la ak ñaar wala ñett wala ñeent lenn daal mën naa la ko dimbale su fekkee yow mm. pare nga pour bàyyi fo ah. mën nañ la dimbali ba nga ñemee takk jabar mais balaa ñu la ci dimbali nag su ma sañoon hmm. nga bàyyi ba dajale loo takkee ba mu leer na gis nga koo takk hmm. nga ñëw ñu débuté ak yow traitement moo gën incha allah gis man du ma yóbbaale affaire bi nii déedéet hmm. déedéet yow kañ comme fi mu toll nii euh, nu tëtti sax foo nga bu mënoo lu bari dama rek yow kañ yow sax jaratul ñu lay tere foofu parce que balaa ngay balaa ngay fo da ngay mën fo dama rek nga jàpp ci yàlla nga jàpp ci yàlla rek boo waree takk jabar nag mën nga ñëw dégg nga boo gisee koo bëgg ah. boo ñëwee ma xoolal la seen diggante hmm. jox la traitement ci góoru Saloum bi hmm. su boobaa di nga am fitu yóbbu may ko njëkk incha allah dégg nga léegi ma ñëw kon baax na kon demal incha allah baax na loolu baaxul foo bi baaxul waay wàññi leen ko